mo dox ci diggante Serigne Ndiaye ak Ngagne Sène Serigne Ndiaye de Ngagne Sène Serigne Ndiaye plaqué na ko Ngagne bañ na Ngagne jël na tànk bi da ngay bëree Ngagne Sène Serigne Ndiaye Ngagne Sène Serigne Ndiaye Ngagne na ko mbot na Serigne Ndiaye koy génne da koy génne wala déet ngañ seen Serigne Ndiaye koy buux dana ko génnee wala déet ngañ seen bu génnaatee am trois avertissement bu amee troisième avertissement day ñàkk combat bi ndeysaan eh. ndeysaan Ngagne Sène ak Serigne Ndiaye ña bëre ña ngay bëre Ngagne Sène jël na jël na Serigne Ndiaye Serigne wure waay ña bëre waay eh Ngagne Sène Serigne Ndiaye ña bëre Ngagne Sène Serigne Ndiaye Ngagne Sène Serigne Ndiaye Ngagne Sène Serigne Ndiaye Ngagne faw ñu xam ne Boy Faye ak Doudou Sané duñu ay noon ay combattant di wane seen bopp ci lutte traditionnelle bi war nañoo mën a daje cent cinquante ndax ku bindu war ngaa mën a sa morom ndaysaan Serigne Ndiaye ak Ngagne Sène Ngagne Sène wicci na ko Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye Ngagne Sène daan na Serigne Ndiaye dee daan na ngañ seen Serigne Ndiaye dee